dafay torlu à des moments ami cher intone yéen i di seetaan les patriotes TV dal leen jàmm si xibaar li gën a fës si xibaar yi gannaaw li nga xam ne moo di xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké yàlla na ko yàlla yàggal lool ànd kook wér gannaaw nag mu mu yónnee ab délégation fële sa palais de la république yónnee ay ndawam nag ñi nga xam ne gannaaw buñ fa demee ngir waxtaan waxtaanu réew mi ngir diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall li nga xamante ni moom mooy war a xew ay jéeyo yu nga xamante ne Serigne Mountakha daal di xamal ne kat li nga xamante ne ñoo ngi leen koy wax kat ki nga xam moom moo di ab Mbàkke Mbàkke bu jege lool Ousmane Sonko moom moo ko daal di wax ne kat Serigne Mountakha nee na kat na Macky Sall bàyyi lépp loo xamante ne su ko defee daal réew mi dina tàggate réew mi jàmm rek lañ ci bëgg moo tax daal li nga xamante ni moom jàpp gi nga xam ne war nañ ko jàpp ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko finalement ñu mujj daal di ko bàyyi ba tax loolu nag ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko gannaaw loole daal na génn sax wonteel ak li nga xam moom moo di askanu Ziguinchor